le soleil yëglekaay ne ko ci ab manifestation boo xam ne rek doon nañ ko amal ngir jàppale askanu Gaza ci la Ousmane Sonko xamle taxawaay gi nga xam ne rek am na ko ngir dimbali askanu waa Palestine moom nag ma ngay xam ne dëkk yu bëree bëri jamono ji nag dañ na cell ci coow li nga xam ne rek am na ci diggante Palestine ak Israël te loolee nag du lu jaadu ci biir Vox Populi moom Ousmane Sonko ma ngay dellu suwaat ci manifestation de soutien bi nga xam ne rek dina koy amal jëmale ko ci kaw askanu Palestine élimaanu joriñ bu Sénégal yéene kaay bi ne bàyyiwul dara ma ngay lancé ay bomb ñii Israël ci biir yëglekaay boobee nag ma nga leen di xamal ni ñun jël nañu dogalub taxaw suñu frères yi nga xam ne rek ñoo yeewoo ca Palestine ngir bokk ak ñoom bile combat te faaw rek ñu daal di amal ay saafara yoo xam ne rek dafa jëm ci isolement politique bu état Israël moom moomee nag ma ngay xam li ni jaay dooleeg ñaawteef gi xam ne rek Israël mi ngi koy amal ci kaw Palestine du lu yees yàgg nañu koo def waaye nag moom élimaanu joriñ ba nekk ca Israël la mu bëgg rek mooy des di doon ki nga xam ne rek mooy jiite gouvernement bi te loolee nag jaral na ko lu nekk ba ci guerre boobee fa am ni ki tey jii nag rek loxoom génn ci jaral na ko mu dox ci ay néew ngir des di doon ki nga xam ne rek mooy doon élimaanu jooriñ bu la loolee nag ngir bañ a jàkkaarloog justice bu dëkkam yéenekaay bi di Le Quotidien faylu ko ne manifestation de soutien bi ñu doon amal jëmale ko ci askanu Palestine Ousmane Sonko ma ngay dal ci kaw premier ministre bu Israël ci biir yëglekaay bi nag moom ma ngay xam ne ni daal conflit boobee am ci diggante Israël ak Palestine nag Ousmane Sonko yàkk na ci lu mel ne xame kii di Benyamin Netanyahu beneenub yëglekaay ne élimaanu jooriñ bu Sénégal fi mu toll nii kay moom mooy rek wut ay saafara ba amal isolement politique ci état bu Israël ngir bu ko defee nag barbarie yi nga xam ne moom lay teg ci kaw waa Palestine ñu mën koo dakkal ndax ak léegi nag pays occidentaux yi dañu ne ceel rek di seetaan ci ñaawteef yooyee te lu ñu mel dañu ko war a dakkal la ñu dakkal coowal Palestine ak Israël addu ci beneen yëglekaay mu di enquête quotidien mi xëy tey ji nag addu jëmale ci lu ñu bëgg a dakkal CES ak HCCT yéenekaay bi di PECO premier grand test na commission bi nga xam ne rek moo soxal assemblée nationale dàq na boobee projet de loi bi nga xam ne rek rek dafa jëmoon ci ñu daal di dakkal li nga xam ne rek moo di a HCCT ak conseil économique social ak environnemental plénière bi nag daañu ko ubbi tey jii waaye boo moytuwulee nag du jur jàmm duudu wadd di xam ne ci biir yëglekaay bi ne bu fekkente ni ku nekk la nga ŋànk woo ko rek boobee luwaa du ñu ko mës a jàllale APR jamono ji nag ma ngay woote ci ab front bu yaatoo yaatu ngir mën a jàkkaarloog régime bu Bassirou Diomaye Faye Vox Populi di ko feelu ne projet de loi bi nga xam ne rek moo jëm ci HCCT ak CESE yéene kaay bi di peeko plénière boo xam ne rek mën nañ caa gis lu nekk gouvernement bu Sénégal ndax dafa bëgg retirer projet de loi bi wala dafay xeex ngir am li mu bëgg lum ci mënti doon commission des lois bi nag daal dina koy rejeté ni ki samedi ji ñu weesu fukki xob ak juróom-benn ci fukki xob ak ñeent moom la ñu daal di voté boobee projet bi nga xam ne rek ci lañ doon sayto lu jëm ci wàllu constitution bi l'observateur daal di xëyee lu jëm ci assemblée national ak lu jëm ci wàllu suppression bi nga xam ne rek moom la ñu bëgg amal ñeel conseil économique social ak environnemental ak HCCT yéenekaay bi ne lu jëm ci rejet projet de loi boobu boobee nga xam ne rek moo am ci wàllu plénière bi rawatina conséquences yi nga xam ne rek mën na koo jur ci wàllu politique loolee lépp dellu suwaat na ci yéenekaay boobee di xam ne ne guléet ci Sénégal ñuy amal ab projet de loi constitution boo xam ne rek commission bi da koo rejeté bés bi la jour moom itam xëy di dellu suwaat ci enjeu yi nga xam ne rek moo am ci boobee plénière yéenekaay bi ne bennoo jamono ji nag bëgg nañoo wane seen bopp ak seenub taxawaay ngir amal ab dictat boo xam ne rek ci ab duo bu yeewi ak wàllu la koy jaarale ñeel commission des lois ñi nga xam ne rek ay noonali ñee lañu daañu topp ci ginnaaw waa Yewwi tribune yëglekaay ne ko donte ne projet de loi bi nag daal dinañ koy rejeté waaye terewul Jomaay ak Sonko nag fi mu toll ni li ñu bëgg rek mooy enterré ñaari kuréel yooyee ngir mën a taxawal beneenub institution addu jëmale ak Sud Quotidien moom tey jii dellu suwaat na ci faat bakkan yu bëri nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku ci réew Sénégal yéenekaay bi ne fi mu toll nii askanu Sénégal moom la kilifa yi di sàkku ñoom ñu daal di jug taxaw sóob seen ci xeex bi bu ñu ci sociologue bii di Pascal Odiane ma nga nekk ci université bu moom ma ngay xam ne nag ne faaw rekk ñu préparer askan wi ci ay situation d'insécurité yoo xam ne rek moom la ñuy faral di dundee jëwriñ ju ñu dénk bàllu biir réew mi di Jean Baptiste Tine nag moom ma ngay joxe ay assurance ci askanu Sénégal di leen woo ngir ñu daal di lëkkaloo ak ñii di way takk der yi ma ngay xam le ci biir yëglekaay bi ne faaw rek askan wi di fësal ñi nga xam ne ñoo di defkatu ñaawteef yi yéenekaay beneen jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir mi moom kay mer na bay futt ba noppi di dalal xelu askan wi ma ngay xam ne ne fukki doomi aadama ak juróom benn faat nañu leen ci diggante ñaari weer kepp te loolee nag rek faaw ñu daal di koy dakkal daañu xeex ba ñàkkum kaaraange bi nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku ci biir réew Sénégal ñu daal di ko fiy jëlee te lu nu mel nag dina tax ñu daal di redoubler ay effort daal di renforcer waat taxawaay woy takk der yi ci terrain bi bu kenn am tiitaange wala ngay ragal a génn di doxi say soxla kenn ku ci nekk fépp fu mu bëgg a dem rek mën na faa dem ndax daañu jël matukaay yi war yëpp yéenekaay bi di Vox Populi na li toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay individu raafale nañu leen ci guddik samedi jàpp dimanche ci yu bëree bëri addu jëmale ci lu sox soxal gàmmug Tiwaawan atum 2024 yéenekaay yu bëree bëri dellu siwaat ci recommandation yi nga xam ne rek bàyyeekoo na ci xalif général di Serigne Babacar Sy Mansour jëmale ko ci askanu Tiwaawan rawatina transporteur yi nga xam ne rek ñoom ñooy indi askan wi foofee ca dëkk bu sell boobee di Tiwaawan tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak lu soxal Premier League yéenekaay bi di Rewmi Sport a ngay xam ne ni Nicolas Jackson dugalaat na but ak Chelsea lu jëm ci wàllu Liga bi nag kii di Mbappé marqué na but à domicile am ak waa Real Madrid mbokk yi li yëgënoon a fas yëgle kaay jàmm